dañuy wax ne boo jógee ci euh, bërëbu fajukaay bi nekk boobu dem ci bi nekk Kër Gol diggante bi mën nga koo xayma ci ñaar fukki kilomètres yu toj yu teg loolu yëpp ci biir Touba la liñ ciy déggee rek mooy Touba dëkk bu rëy rëy la boo xam ne faw kuréel yi fi nekk di liggéeyal sëriñ bi ñi fi représenté état ñuy boole doole yi di bennoo di jàppalante ngir ndam li gën a ngir ndam gën a yomb gën a bari ndax bu fekkee OMS organisation mondiale de la santé dafa wax ne dix mille habitants fu ñu nekk fu nekk war nañu am poste de santé kon war ngaa daal di def yitte ci xam Touba ñaataa fi nekk xam ñaata bërëbu fajukaay la ñu war a am bu fekkee dañuy wax ne cent mille war nañoo am euh, cinquante mille war na am centre de santé cent cinquante mille war am hôpital ndax ci xam population bi ñaata lañ ci ngay mën a mesurer réalisation yi ngay def man koo prioriser xam ba xam ban ban moo war a jiitu ak ban moo ci war a topp li tax may wax loolu mooy poste de santé yi bari na ci yoo xam ne bi mu paree yàgg na waaye ci ay waxtaan yu ñu war a waxtaanee ba xam naka la Touba ca kanam mën a dugale loxoom ci biir gestion bi ndax ginnaaw Touba kanam bu ñu waxee Touba kanam mooy population bi te poste de santé santé de proximité la dafay jege population bi kon war nañoo fexe ba Touba kanam dugg ci gestion bi ndax Touba ca kanam mooy population bi te loolu dafay yombal communication bi ñu ciy soxla dafay yombal lépp loo xam ne soxla nañ ko ci population bi ñu war koo jàppee ci santé ndax Touba ca kanam bu ñuy wax mbooloo mi ñoom la waaye dafay mel ne loolu xaw naa jël xaw naa jël temps bu baree bari ci loolu li mu laaj ci démarche administrative ci ay waxtaan ba ñu mën a am ak dëppoo ak déggoo ba Touba ca kanam mën a dugal loxoom ci biir monsieur le maire Touba kanam partenaire potentiel ngir commune bu Touba Touba kanam kuréel la goo xam ne euh, ku sañoon am ko ci sa dëkk kon noo ngi sàkku ci commune bi di sàkku ci district bi di sàkku ci le sous-préfet le préfet ak le gouverneur ñuy jàppale Touba ca kanam ci démarche administrative bi di ko jàppale muy gën a dugal loxoom ci lépp loo xam ne war nañ ko def ci dëkk bi li tax may wax lii nag Serigne taxaa daf ñuy jox ndigal ñuy déggoo ak di dëppoo ak ak commune kii yi fi nekk service yi fi nekk yépp euh, poste de santé yi bi ñu koy tàmbali Euh, ñu bëri dañoo jàppoon ne mën nañ koo def ay euh, aux de ay quatre vingt millions wala wala wala ay cinquante millions mais bi ñu xoolee ba xam ne dëkkub sañ tubaab bi li mu laaj mooy lépp looy def nga def ci li ci gën ci lañ ko bu ci nekk ñu xayma ko selon population ba fa nekk. tey boo demee ci poste de santé bu mel ni bu bëreel ñaa ngi fa def euh, ñu ngi fa def 128 millions bu ñu demee fu mel ni Kër Gol 124 millions poste de santé bu Daaru Xadim ñaa ngi fa def 81 millions donc boo boolee lépp plus de cent 334 millions mooy ñetti poste de santé yi moom lañ ci def loolu yëpp nag ñi ngi ko defee ci koppar yi murid yi di joxe ngir dëkk bi loolu moo waral suñu kàddu googu ñuy faral di wax lu bari laaj lu ñu mën ko def fu ñu xam donc noonu la liggéey bi demee biñ koy tàmbali yi tamit tëbuñ tëb rek defe ko nu ñu neexee dañ ci ànd ak boroom xam-xam yi docteur Dieng moom lañ àndal mu xool cartographie sanitaire bi xool gox ya ko gën a soxla ñu dem ci barab yee visité ko xam ne lii fii la baax ñu def ko fa Touba ca kanam noonu lay doxe lépp lu muy yëngu rek dana woo ña ca am xam-xam mu ànd ca ak ñoom loolu moo waral poste de santé yi ñu réaliser ko noonu. biir boo ci defaree ay million ña koy saytu da nga caa war a bokk gestion boobu nag Touba ca kanam mënta jël ay millions def ko ci ay poste de santé ba pare bàyyi ko noonu loolu xalaatuñu parce que Touba ca kanam ba muy créer ay poste de santé di ko tabax li mu bëggoon mooy mu am un personnel de santé qualifié. ba pare nag am nag benn genre solidarité ci ticket yeeg lépp ba mu doon lu jàppandi ci askan wi ndax bu ngeen xoolee fi ñu tabax poste de santé yëpp ña fa nekk population bu défavorisée lañ bu sonn lañ kon buñ ci tegee di leen bëgg a facturer ay ay ay ticket kii yu cher loolu du du méngoo ak ñun la taxoon ñu jóg loolu moo waral Touba ca kanam di sàkku une participation ci gestion administrative poste de santé yëpp ba bu leen waree venir en aide mu def ko ndax fasuñ yéene rek defar poste de santé yi bàyyi ko noonu mais dañ leen a bëgg di gunge di leen gunge sur le plan financier moo xam problème mu moo xam lu mënti doon ñu mën leen ciy jàppale te loolu mënuñu ko def lu dul dañoo bokk ci biir gestion bi donc loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la président yëkkati loolu la ci jublu woon ñu xam ne gestion bi ñu mën cee bokk di ci jàppale askan bi muy poste de santé Kër Gol poste de santé Boberel ak poste de santé Daaru Xaddim muy poste de santé yoo xam ne bërëb yi ñu ko def daanaka dafa xawoon tumuranke bërëbu Euh, xettali askan wi ci bërëb yooyu ñu ko def ba tax paj mi gën a jàppandi ñu ciy sant bu baax di sant xalif général des sañ sëñ Mountakha Bachir ci jàppale yi nga xam ne mu ngi koy jàppale askan wi ci sant bi di ko sant bu baax di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di sant Touba ci kanam ak képp koo xam ne rek yaa ngi dugal sa alal ci eh, Touba ci kanam di leen sant ci liggéey bii nga xam ne ñu ngi ko def ci wàllu santé muy ay poste de santé yu mucc ayib di leen wax ni ministère de la santé taxaw na ngir yabal fa ay ndaw yiy faj maanaam ay infirmier chef de poste ak ay sage-femme d'État yoo xam ne dinañ mën faj fa faj mu mucc ayib faj mu jàppale ba képp ku yittewoo am faj rek nga mën ci jot ba doo dem di ko jéggaani ji fenn loolu xas nañ ci waxtaan ak suñuy kilifa ba ay matuwaay dina ci dinañ ko ci jël ngir yebal fa ay fajkat leneen li mooy wàllu maintenance ak entretien service technique wu ministère yi pare nañ pour jàppale ñu ci maintenance bi ak entretien bi euh, dinañ aussi def ay renforcement de capacité ña fay nekk ngir ñu mën a taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci ñoom ma fàttali ne ñu ngi ci jamonoy mbas te gis nañ ne li ñuy wax troisième vague mooy mbas mi dafa mel ne lu lu dellu siwaat te ñu gis ne dafa taseeg nit ñi xaw a bàyyeeku ma doon fàttali ne lii ñuy wax troisième vague lu wér la loo xam ne suñu sàgganee rek dina law ci biir askan bi ñu doon ñaan askan bi di ñaan kilifa yi ñu jàppale ñu ci ba nit ñi tàmbaliwaat di sol masque yi te di fexe di raxas loxo yi di wàññi aussi nuyoo bi ñu bàyyi sax nuyoo bi te fexe nag ñekku ji ñu fexe ñekku ndax gis nañ ne ñekk yi mooy li mën a aar askan wi fii ñu toll ci xeex bi ndax ñekk yi sooy xool mooy maanaam arme bi nga xam ne moo mujj ci li ñu mën a xeexe mbas mi kon ñu ngi ñaan askan bi yëpp ñu takku laxasaayu dem ñekku te xam ne ñekk yi moo leen di aar ñekk yi fi mu toll bëri na ay coow ak ay wax yuñ ciy wax ma seedeel leen ni fii loolu ñu ciy wax amul ndax man mii di wax ak yow ak samay naataango ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kër docteur ñàkku nañ depuis février te ñu ngi nii taxaw di wax yéen kon nañu góor góor lu génne njaboot ñëpp dem ñekku su ko defee feebar bi mën dellu ginnaaw